arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb ak li làmb bañ laaj na ay jugeem arbitre baa ngi wax ak ay consultant am Siteu bu na ki nga xamante ne ni mooy Thiatou Rebeuss arbitre bi na Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor mbokk 26 mars yaa ngi ci digg géew bi Thiatou Rebeuss a ngi doxee wet andiwaat na ko ci digg géew bi Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor sul na sul na bi sori noona waaye mbokk yi dinañ jege yaantoo yàgg yàgg yàgg laale Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor à droite arbitre leen dinañu bëree bëree mënut a ñàkk Siteu bu Ngor suul na ay tànkam Thiatou Rebeuss da koo bëgg a jàpp da koo bëgg a jàpp Thiatou Rebeuss jàpp na ko Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss Thiatou Rebeuss defal ndànk sañaxal na ko Siteu door na Siteu bu Ngor fàq na Caatu Rebeuss xale yaa ngay bëree Caatu Rebeuss bu jàpp ne yaa ko dàq bëre da koy daan da koy daan wala lu mu koy def Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor waa lii lan la waa lii lan la waa lii lan la lii lan la Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor nu muy def lii Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor ñoo ngay bëree ñoom ñaar Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor ngay dóor Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss waaye eh, eh laay waa lii lu mu doon Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bëggul mu ko Siteu Caatu Rebeuss Siteu Caatu Rebeuss Siteu door na léegi Siteu door na léegi Siteu Caatu Rebeuss dooraat na Siteu dooraat na door na ko waaye waa lii lan la mbaa du ko doomu daanu caatu robas mi caatu robas si tamit da ko doomu daanu waaw waaw kenn xamul la làmba ngi noonu làmba ngi noonu caatu robas si tamit nga xoolal ma supporter ya caatu ngor fàq na ko da koy daan daan na daanu na fàq na ko mu daanu fàq na ko mu daanu làmba ngi noonu làmba ngi noonu Siteu Bongo fàq na ko sañaxal na ko Siteu bu Ngor door na ko Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss door na ko Siteu bu Ngor fàq na Thiatou Rebeuss xale yaa ngay bëree Thiatou Rebeuss bu jàpp ne yaa ko dàq bëre da koy daan da koy daan wala lu mu koy def Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor waa lii lan la waa lii lan la waa lii lan la lii lan la Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor nu muy def lii Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor ñoo ngay bëre ñoom ñaar caatu rëbës Siteu bu Ngor caatu rëbës Siteu bu Ngor ngay dóor Siteu bu Ngor caatu rëbës waaye eh eh laay waa lii lu mu doon caatu rëbës Siteu bu Ngor Siteu bëggul mu jàpp ko Siteu caatu rëbës Siteu caatu rëbës Siteu door na léegi Siteu caatu Rebeuss dooraat na Siteu dooraat na door na ko waaye waaye lii lan la baanu ko doomu daanu caatu Rebeuss mi caatu Rebeuss Siteu mu ko da ko doomu daanu waaw waaw kenn xamul lii lan la làmba ngi noonu làmba ngi noonu caatu Rebeuss Siteu mu ko xoolal ma supporter ya caatu Rebeuss takkaat na ko. Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor fàq na ko da koy daan daan na daanu na fàq na ko mu daanu fàq na ko mu daanu làmba gi noonu làmba gi noonu